dans quelques jours, 12 et 14 août. Euh, Rendez-vous ici au Stade Marius Ndiaye pour venir soutenir les Lions parce que les Lions vont jouer un match amical contre l'équipe nationale de Tunisie. Donc vous voyez un peu l'importance. C'est pourquoi nous recevons dans cette première partie le sélectionneur des Lions, Dessagana Diop, ancien international de basket. Euh, on parlera également des Jeux Olympiques, on parlera des finales euh, ou de la Coupe du Sénégal jouée ce week Alors, de Sagana Diop euh, Ngagne, c'est lui que nous accueillons, donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est le sélectionneur des Lions du basketball, ancien international de basket qui a joué un peu partout, hein, aux États-Unis notamment à Cleveland, Dallas, Dallas euh, Charlotte. Euh, je rappelle aussi qu'il a joué à la gendarme. Alors, justement, comment a commencé Ngagne, rappelez-nous brièvement le cursus de Ngagne. Quand Ngagne commence basket, c'est là où il est waaw basket moom fii laa commencé au Sénégal. parce que man booy xool sax bëgguma woon basket football laa bëggoon. Ah comme tous les jeunes fii xam nga booy màgg Sénégal. waaw man parcelle laa màggee sur le banlieue. football laa bëggoon mais euh, cathédrale laa doon jàngee collège de la cathédrale. dama mm. euh, prof EPS moo doon euh, coach Alioune Diagne. Mm-hmm. moom moom ma dugal si basket ah. Mm-hmm. moom moom xaw a forcé même sax dama ne ko man basket moom doon football lañ. Mm-hmm. mais comme ma nekkoon am grande taille. waay waay après moom forcé ma bi commencé basket après dem GA. joué GA foofu carré. yàlla def ba ma nekkee GA di joué carré dañ ma doon sélectionné en ba may joué senior. ba si laa nekkoon sax révélation fii en quatre vingt dix neuf. après noonu laa jaaree high school. dem hmm. Oak Hill. académie deux ans que yàlla dimbali ma ñu drafté ma dugg NBA. club yi waaw club yi jaar naa Cleveland moo ma drafté. waaw joué foofu 4 après ma dem Dallas signé ba ma nekkee Free Agent laa signé Dallas. Mm. Dallas joué fa 4 ans. Mm. après mu trade ma New Jersey mais New Jersey yàggu mm. si deadline trade la ma benn 3 4 mois laa fa def. après dafa ma nekk Free Agent. si laa delluwaat Dallas. joué foofu benn an. an après ba ma foofu si la terminé à Charlotte. joué Charlotte. 4 ans ça fait 12 ans de carrière malheureusement dama bëggoon naa jouer lépp 12 ans mais dama am problème mu genou. Mhm. moo tax ma teel a arrêté à 31 ans. Mhm. après nag si laa dugg si coaching bi quoi. Ah, coaching bi sax bëgg ma ko def tamit. c' ah la même chose que coaching bi. Ah. parce que ma doon jouer chaque fois moom. parce que coaching xam nga c' est nekk si bureau bi journée bi yëpp. dama doon gis coach yi ñuy yàggee si bureau ma ne lii moom liggéey bi du ma ko premier deux mois c'était bon parce que da ngay amul kii quoi. mais après si laa commencé wéet. Mm-hmm. donc amul may def ma ne il faut ma def dara. Mm-hmm. après si laa commencé dugg si coaching bi quoi. Mm-hmm. après léegi virus si coaching bi dugg ma ba léegi sa fait maintenant bi mooy sama dixième année may coacher ah. waaw te gagné aussi Jilig ñu rappelé ko gagné nga Jilig ah. waaw Jilig waaw parce que coaching bi may dugg si Jilig sax laa commencé comme assistant coach si Jilig parce que boobu Dallas laa mm. nekkoon si Jilig bi ah, pendant deux ans comme assistant. Mm. après ma am chance tase Queen Snyder. moo nekkoon coach Utah te moom xam naa ko sama waay la mu mos na ñëw Sénégal sax yëpp. Mm, mm. sama xarit la quoi après moom moo ma jël Utah ma nekk foofu comme player development laa commencé. Mm, player development nekk si entraînement di jàppale gars après ma def foofu quatre ans quatre ans laa def Utah en tant que deux ans player development après yeneen deux ans assistant coach. après su laa jógee Utah après dem Houston. Rockets def foofu deux ans. après ma quitté foofu moo may quitté sax sama contrat desoon na deux ans pour nekk sa coach mais man maa bëggoon dem G League bi quoi. Mm, pour nekk coach principal. xam nga parce que coach principal yow yaay xam nga. liggéey bi si nga gën a xalaat dafay bëri moo tax. ma dem si G League Westchester Knicks. Mm. mooy équipe bu G League bu New York Knicks. Mm. coach fa. Ah, daaw moo doon sama deuxième année foofu. ça s'est bien passé alhamdulilah. xam nga ñoo gagné coach ñoo gagné euh, tournoi ci ligue bi. année bi passé foofu. <coughs> en tout cas félicitations alors. merci euh, donc su ma juumee la ah, le premier afro basket avec les Lions pour Ngagne c'était en 2001. Mm-hmm. au Maroc. loolu lan la lay rappelé. oui parce que instant ñu ngi may soog a drafté xam nga. Mm-hmm. j'étais jeune j'avais 19 ans xam nga ñu may soog a drafté je pense pas que instant yii pare woon naa sax pour xam nga parce que booy high school laa jugee. drafté NBA xam nga. Mm-hmm. ma dem euh, au Maroc mais expérience bu baax la woon parce que jàng naa ci lu bëri. ma foofu avec les grands comme ay ñoom Raymond Carvalho. sama gars yi nekk foofu waaw c' était un bon groupe. am na ñi jógee woon NBA y' avait yow y' avait Camara. waaw Jules Camara mu ngi fa woon Mamadou Ndiaye Mamadou Ndiaye mu ngi fa woon. amoon une bonne équipe mais amoon une bonne équipe. Babou Cissé Babou Cissé affaire yooyu. c'était un très bon match gënoon nekk xale grand yi di ma sonal rek di ma yónni rek. <laughs> finalement l'équipe a fait long feu parce que seen résultat yi demeewuloon noonu. alors mm. que vous aviez un bon groupe. waaw man moo tax xam nga loolu yëpp affaire expérience boo jaar si àdduna da nga si jàng quoi. parce que mm. booy xool nekkul da ngay da ngay dajale talent rek nga dem mm. gagner. Mm-hmm. surtout ay tournois yooyu mel na ay afro basket. il faut nga am équipe loolu si lépp la sax. Mm-hmm. muy NBA muy collège collège muy high school muy fii ay GA il faut nga am continuité gars yi xamante seen biir xam nga. Mm-hmm, mm-hmm. loolu peut-être ñun loolu moo ñu kii woon parce que ñu entraîné woon defe naa ay deux semaines la. maximum mm-hmm. trois semaines demi joué amuñu woon kii quoi. entente suñu biir voilà cohésion bi dafa desoon. alors on rappelle là que vous préparez la Tunisie match deux matchs le et le 14 ici même au stadium Marius Ndiaye. Euh, loolu moo équipe bi di entraîné pourquoi le choix de la Tunisie. non booy xool nag Tunisie c'est pas un choix la mais c'est pas un choix parce que dañuy dama ñëw ba ma ñëwee vacances parce que ñun jii li suñu saison day teel a jeex fin mars la jeex j'étais là en avril mm. après si laa gisee président am réunion moom ma ne ko xam qualifié malheureusement qualifié Jeux olympiques mais mënuñu toog un an boo xam duñu def dara équipe bi xam nga parce que wax nañu yónnee invitation et équipe mm-hmm. Mm-hmm. invitation invité mm-hmm. ñoom ñoo répondre si en invitation bi ñoom ñoo répondre ne dañuy ñëw moo tax ñu nar a ñoom le 12 et ah. kon euh, c'est ça aurait pu avec d'autres équipes bu fekkee ñeneen ni Maroc ak euh, moo gënoon sax loolu lañ doon jéem def parce que xam bu amoon trois équipes dañ war a joué match bu mais malheureusement ñëwul mhm. même maa ngi si doon wax sax Gallo Amadou Gallo Fall waxoon nañ si ba moom da doon jéem def All mhm. équipe bu baal bi mhm. ñoom tam ñu ñëw joué mais malheureusement sa pas ça pas moo tax léegi Tunisie rek mooy ñëw mais moo gën nee naa moo gën nee surtout que Tunisie euh, je rappelle champion d'Afrique 2011 2017 ak 2021 un bon sparring partenaire la quoi équipe bu baax la ba pare ñoom coach bu ñu jël léegi xam naa ko quoi c'est kii ah, français la da doon ñëw fële ah, ba mu nekkee Utah da doon ñëw foofu def ay stage ak ñun son on équipe équipe boo xamante ne la xam nga dina tax dina nekk match bu yomb quoi waaw mhm. ah, match compétitif affaire yooyu moo tax choix bu baax la choix bu baax la alors je rappelle que vous préparez les éliminatoires avec la fenêtre de novembre prévue ici à Dakar euh, le Sénégal qui est dans la dans la poule C en compagnie di Cameroun, du Gabon et du Rwanda. Mhm. Euh, kii bu baax la pour pour ah, pour relever la. waaw am la parce que booy xool Rwanda Cheikh Sarr. xam nga ngi def mu ngi liggéey foofu liggéey bu baax liggéey ba extraordinaire ñu ngi am na équipe bu baax. Cameroun ñoom ñoo ñu dóor. ba ñuy mujjee jouer compétition en Nigéria pour qualifier coupe du monde. ñoom ñoo ñu dóoroon xam nga. Gabon je sais pas Gabon moom miinuma leen noonu tellement xam nga mais du yomb quoi affaire bi moom moo tax il faut ñu préparer def lu ñu war a def pour match yu ñëwee on sera en pleine forme pour gagner les xanaa ngeen dafa bëgg a fay ci Cameroun moo tax mu boole ko ñu ne xaaral bi moom bu ñëwee fii moom. non non loolu sax dama xam ne xam nga sport comme lu ñu doon wax sànq ba ñuy wax affaire 2001 ba ñu gagné man dama gëm ne sport xam nga continuité la il faut nga continuer liggéey mënuñu bàyyi rek jouer tase benn deux avant novembre wala une semaine dem jouer comme li ñuy def nii dinañu préparer en novembre mm-hmm. xam nga dinañu préparer fenêtre bu topp en février mm-hmm. dinañu préparer coupe d'Afrique mm-hmm. parce que affaire bi du xëy rek sotti quoi liggéey la ma bëggoon Mm-hmm. ok alors revenez rapidement sur le groupe convoqué mm-hmm. ñoo xam ne euh, est-ce que mën nga ñu ci wax tuuti le groupe waaw bëggoon nañ sax mu ëpp di seet mais am na ay joueurs comme ay Khalifa Diop euh, ak Boubacar Touré mënu woon ñëw ay dañu am blessure mm-hmm. mais Ndiaye dafa am ay affaires personnelles yu mu doon toppatoo Pape Moustapha même chose xam nga on a des jeunes ñoo xam ne instant yi ñëw ñëw booy Mo Gueye Mohamed Gueye xam mu ngi joué Atlanta ñu en contact dafa am lu muy réglé tamit moo tax c'était bon ñu indi ay anciens joueurs nekkoon comme ay Branco ay Amar ay Ibou Faye ay Bamba xam nañ affaire yi. Mm. même temps tamit man dama jox benn chance ma gis jeunes yi. suñu championnat fait dañuy busy dañuy occupé chaque fois. am mm. doo am sax temps xool yeneen joueurs nekk Europe. Mm. ak temps différence heure bi xam day métti quoi moo tax Matar Ndiaye dafay def job bu baax. coach Pa bi. coach Amadou xam nga ay coach ay ñoom rawu ay malay di détecter joueurs yu nekk partout dans le monde. booy xool booy yu bëri fii c'est la première fois ma gis nañu basket. on a beaucoup de jeunes. te day tax xam nga ñu développer suñu équipe. on a des anciens comme hmm. Lamine. Lamine peut être Coupe d' Afrique bii di mooy dernier Coupe d' Afrique. oui peut être la même chose. kon il faut ñu préparer le futur tamit quoi loolu moo tax c' est bon de voir le jeune qui vient du Canada. jeune Karim Mané xam nga loolu tamit addition bu baax la. parce que fa la ñu liggéey ci te Amadou coach Amadou ak Matar ils ont fait un excellent job. parce que ñoom ñoo topp affaire bi. Mm. parce que Mouhamadou dafa joué woon équipe nationale Canada. mooy 18 ans. Mm. te fa la ñu yónnee benn lettre FIBA. Mm. pour ñoom jox ko clearance moom a joué Mm-hmm. Matar moo si nekk chaque jour. di si kii ba gars yi. Mm-hmm. alhamdulilah bañ jox ko national ki mu pour mu mën a jouer ak ñun. au mm-hmm. Sénégal. alors donc ça veut dire que Ngagne Desagana Diop lance un peu l' opération reconquête du titre parce que titre boo xam ne gagné ko. depuis fii ci Maristes mhm. donc c'est l'opération Reconquête qui est lancée avec ce mélange de jeunes d'anciens joueurs waaw loolu la ñun moom lu ñuy dugg lañu pour gagner la pour gagner Coupe d'Afrique instant Coupe d'Afrique bu ñu dem pour gagner la dernière Coupe d'Afrique bi en Rwanda on est parti jusqu'en demi-finale amoon nañu équipe bu baax malheureusement on a perdu contre la lu ñuy def rek mooy continuer liggéey bi xam te liggéey bi comme lu may get better chaque jour mm-hmm. rek. we get better better. Mm-hmm. nga xam ne tournoi bu ñëwee dina fekk incha allah ñu pare yàlla dimbali ñu ñëpp ñaanal ñu ba ñu dem ba ko. incha allah surtout que léegi l'éventail de d'adversaire mu ngi agrandir parce que avant entre Sénégal Nigéria Angola Tunisie la woon et léegi am na beneen adversaire bu dolli si ci ci mbir mi mooy sur du Sud. waaw parce que affaire bi moom parce que léegi fépp la quoi kenn moomu ko. am hmm. avant booy wax comme ni nga wax booy wax Afrique da naan ay Sénégal ay Nigéria ay Côte d'Ivoire hmm. peut-être wala waaw fàtte naa d'Ivoire tamit waaw. équipe yëpp baax équipe yëpp hmm. baax. xam nga peut-être ñoom ñooy feeñee sang parce que ñoom ñoo nekk si Jeux Olympiques yi. résultat pare euh, parce que ba ni si Soudan bii dañ dem nga xam ne pour gagner dina métti parce que da ngay gis ñoom nu ñuy liggéeyee parce que ils ont un leader extraordinaire lu waal Deng dafa gëm affaire Afrique mm. xam nga parce que même moom dañuy wax démb rek mu ngi may bind message di ma encourager si tournoi bi ñuy def moom Afrique la gëm xam nga mais en même temps bu match yi commencé on va compétir contre mm. eux mais dañuy échanger à chaque fois mm-hmm. te moom mu ngi def ay affaire yu baax da si def ay moyens moo tax seen équipe bi yegg fu mu yegg mm-hmm. affaire bi liggéey la te daf ko gëm quoi dafa mm-hmm. gëm Afrique dafa gëm Sud Soudan mais ñun moom nañ ko ne def li ñuy def liggéey rek yàlla baax na incha allah. surtout que ñoom souvent Sénégal moo leen di indil problème parce que dañu xaw a jaar ci kaw équipe yi facile mais souvent Sénégal contre Sénégal ils ont des difficultés. parce que dañuy match ak ñoom bu baax. parce que ñoom booy xool ñoom seen basket dañu gaaw dañuy tëb dañu mun daw. te ñun tam am nañ loolu on a des yoo xamante ne bu ñuy joué ak ñoom dañuy match bu baax ak ñoom quoi. Mm. loolu moo tax ñu leen sonal. Mm. ñun daal nañu continuer liggéey lu def mais c' pas seulement la nga wax sànq mm-hmm. ah. ñu baax parce que booy xool ah, ah, na ku ñu dóor. Angola am équipe yu bëri ay ñu wax mm-hmm. sànq affaire bi du nekk Sud Soudan kese. ñun ñu focaliser wu seulement Sud Soudan. dafa am équipe yu bëri yu fi nekk yu xam ne. équipe yu baax lañ moo tax il faut ñu continuer liggéey. pour bu ñu taseel on sera prêt. ok est-ce que tey jii su ma la nga listé ñu nga wax ñu nga cité ñu euh, ay affaires yoo xam ne suñ ko defee. ça va aider le Sénégal à revenir au premier plan à retrouver son basket pourquoi pas à retrouver le trône continental soo doon cité lan lan la ñu war a def ak lan ak lan ak ah comme lu ñuy def nii rek lu ñu commencé nii ah, ah stage ah. yi genre stage bon xam nga même équipe nationale états ñu am am équipe nii ñu gis nañ Jeux olympiques seen star yi ñoom chaque vacances dañuy def stage mais bu nekkee deux semaines mm. parce nekk rek mu nekk loo xamante ne mm. dañuy waaye jouer ñu def ko affaire yëpp day tax ñu dimbali mm. am bu nekkul sax si côté basket si côté joueurs yi xamante seen biir ñu nekk regroupement am connexion entre équipe bi ak staff bi yooyu yëpp day jouer pour nga gagner affaire ñu def ko en même temps tamit basket bi comme ñoom ah, directeur tang rawul ñu nekkee parce que il faut ñu développer ko au Sénégal. comment moo tax on a amené trois locaux. Mhm. pour ñu ñëw jàpp si xam nga. Mhm. kon ne liggéey bi affaire bi moom liggéey la boo mhm. liggéeyee da ngay fayeku mhm. xam parce que instant yi on en vacances mhm. mun nañ nekk ku nekk dem vacances def lu mais les jeunes se sacrifient staff bi coaching staff bi sacrifie chaque matin ñu ñëw fii ak tàngaay bi di pour rek pour incha boo xam ne bu ñu demee compétition daf fekk ñu pare peut-être côté de ça liggéey bi les stages c'est bien mais il aussi que état bi jàpp ci sponsors yi ñëw jàpp ci pour que ngeen am possibilité def justement très très souvent xool dénicher d'autres talents. waaw waaw parce que Coupe du man ñu ngi def job bu baax. parce que Matar loolu leen liggéey. New York ñoo bokk équipe. moom chaque fois damay yónnee ay joueurs. chaque fois y a des jeunes Samba Fall. Samba Fall nekk Side damay yónnee ay boy nekk Side comme man Baye Ndongo. kii mm. xaw ma ko woon. Mm. Samba Fall moom wax ay waxam. Mm. Mouhamed Silla xaw ma ko woon. gars ñoom wax ay waxam Mouhamed Camara. comme lu ma sànq man sama job dafay coaching da ngay bés boo ñu ngi def di def liggéey jël talent yi même bu ñaan yàlla incha allah 2025 ñu gagné ko loolu moo tax ñu fay yóbbu mhm. pour le futur mhm. xal jeunes yi am na ay jeunes comme le jeune là Pape mhm. a ans te booy c'est le futur da ngay gis rek mën na basket xam basket xam nga il faut ñu continuer di def quelques locaux qui sont là trois euh, benn benn euh, douane. benn dug benn douane benn Dakar benn Dakar. Euh, noo jàngatee évolution basket locale. waaw xamoon naa bëggoon naa indi ay locaux mais je savais pas pas bi hmm. mais je suis venu semaine samedi passé. final euh, bi finalu kii vu Doumbouya. waay Doumbouya waay les athlétiques. absolument chose Pape Djibi. waay su eh, hmm. bu fekkee équipe bi peut-être deux mille vingt cinq mënul dem mais hmm. pour le futur quoi. waaw loolu la. alors dañuy final euh, Basketball Africa League. la douane nous l'avait représenté, la douane elle est en finale, a perdu contre Petro, alors que la douane avait bien enchaîné, avait bien entamé ce match. Euh, soit tu donnes de l'USWAT, ban jàngat nga ciy am défaite douane contre Petro en finale de la dernière bière. waaw xam nga affaire bi moom ah da nga si da nga siy kontaan surtout ba nga xamante ne tamit coach Pa bi son mm. seen match daf leen di seetaan di encouragé dafa koy yónnee ay message ne mm. boo paree boo defee lii def lii def lii xam nga bu mu gagné ko. Mm-hmm. yàlla dimbali na ba mu nekk coach de coach mm. de l'année foofu si BAL bi te. moom nekkul douane kese représenté bu demee mhm. foofu sénégalais représenté tous les mhm. sénégalais mhm. xam nga te douane ñu ngi def ay effort ñu ngi indi ay joueurs baax ñu ngi def daal lu ñu war a def bu ñu nekkee foofu ñun lu ñu mun rek mooy di leen jàppale jàppale bi ça veut dire que xam nga seetaan match yi après échange ak coach pa bi ne ko peut-être essayer lii defal lii defal lii quoi c'est une boobu <laughs> c'était final moom xam nga bu nekk mun nga gagner sa morom mais xam nga dañuy ñaan yàlla mooy dogal yàlla la dogal ñu gagner continuer liggéey bi rek beneen yooyu incha allah ñoom ñu gagné ko. alors ñoom bi ñu dellu si waatee finalement peut-être ils n'ont pas encore digéré comme moi. Mhm. Euh, moo tax ren championnat beneen représentant mhm. mooy mhm. ñëw parce que Douane gagné ko. Ville de Dakar moo ko gagné euh, soo doon jox conseil waa Ville de Dakar mooy sur le plan administratif sur le plan technique sur le plan mobilisation sur le plan accompagnement. pour bien nous représenter à la prochaine bielle lan ngay waaw ñoom kon ne liggéey parce que ils ont fait un bon boulot ñëw ba gagné championnat bi Sénégal mais tamit booy dem bielle da nga war a xam ne tamit euh, juste ñoo xam nañ ko. Mhm. parce que du ma leen jàngal dara yàgg nañ ci affaire bi. Mhm. mais il faut nga indi ay joueurs mhm. moom pour ñu ñëw dañoo bëgg xaalis il faut nga fay leen ñu ñëw jàppale la. parce que tamit xam naa te gëm naa a gagné. dem loolu def loolu allah incha allah alors fu ñu koy tëjee mooy euh, au moment où vous préparez euh, pour d'abord accueillir la Tunisie ensuite préparer la fenêtre de novembre il y a en même temps l'équipe nationale féminine qui se prépare mm-hmm, mm-hmm. pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde il y a aussi euh, les U18 qui se préparent donc euh, liggéey bi am na solo actuellement trois sélections qui se préparent en même temps. waaw c'est ça parce que man ba ma may ñëw ba ma yégaloo dama ci kontaan. parce que ah, coach bi coach américain mu jël xam naa ko depuis ba ma nekkee high school. moom xam na ma xam nga te yàlla def na ba ñu nekkee ba may jógee États-Unis ñëw fi ñoo bokk vol. on a discuté beaucoup on a discuté beaucoup affaire basket Sénégal te yooyu. moom bëgg na jàppale basket Sénégal bu baax. ñëw naa fi euh, quelques U18 ñoom bu ñu entraîné pare ñoom la ñuy entraîné. toog naa fi tamit d'entraînement. parce que U18 ñoom ñooy ñëw après ñu moo tax bon déjà ñoom nekk entraîné. xam ne naa a xool talent si nekk mhm. chaque fois ñoom bu ñu entraîné pare damay toog fi seen. ok seen ah. dañuy tëj euh, mbir mi di lay remercier ñu bàyyi la nga suivre euh, entraînement yi. Euh, mais peut-être euh, foofu ñu koy damay kii damay cokkaas tuuti rek parce que c'est bien aujourd'hui il y a un coach un ancien basketteur sénégalais qui est à la tête de l'équipe nationale Euh, dem nañ jëli américain bon ñu koy ñaanal ah mu réussir ak Sénégal parce que c'est technicien chevronné mais peut-être bii bu passé il faut ñu dellu soit euh, jël suñu coach yi quand même ah ñu coacher suñu sélection yi n'est-ce pas. ah doo ma dugal de loolu du ma ci wax de <laughs> ah bu sedd <laughs> ah. bon en tout cas on lui souhaite vraiment plein succès ah. nest pas on lui souhaite plein succès. mais comme il y a des compétences sur le plan local voilà moom moom mënu ci wax quoi voilà dama ko bëggoon dugal rek mais mais mais il n'est pas entré dans il n'est pas tombé dans le piège <laughs> voilà <laughs> en tout cas merci beaucoup Ngagne ñu bàyyi la nga dem continuer entraînement yi et te souhaite euh, bonne chance merci beaucoup merci voilà alors Pape dans un instant on va poursuivre cette émission réalisée ce soir ici au stade Marius Ndiaye euh, mais tout de on va regarder la Tentez avec OneXBet. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie de ce sport de geste que nous réalisons ce soir ici au Stadium Marius Ndiaye. Je rappelle le prétexte, les Lions que vous voyez en arrière-plan donc euh, deux rencontres amicales, deux rencontres importantes que vous devez noter sur votre agenda pour venir ici à Marius Ndiaye les soutenir. Alors euh, les Lions vont affronter la Tunisie les 12 et 14 août, donc match amical parce que le Sénégal prépare la fenêtre de novembre euh, qui va se jouer à Dakar avec euh, le Sénégal. Donc la même poule que le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Alors avant d'accueillir euh, d'autres invités, on va parcourir très rapidement quelques actualités et c'est dans quelques minutes. On ouvre donc la page des Jeux Olympiques Paris 2024 avec quelques informations notamment sur les Lions. Lui, François Mendy qualifié pour les demi-finales du 110 et Il a fini premier de sa série avec un chrono de 13 secondes 31. Donc, euh, on va lui souhaiter bonne chance pour ces demi-finales. On note Sénégalais également euh, le sprinter euh, Cheikh Tidian Diouf qui est passé par les repêchages pour donc euh, se qualifier en demi-finale pour les 400 mètres. C'était ce lundi matin. À lui également, euh, très bonne chance. Et puis nous allons à Thiès où le ministre des Sports Hadidien Gaye a participé à la cérémonie officielle de clôture du Festival national du sport scolaire. Euh, ce festival qui a vu la participation de 1800 athlètes euh, dans diverses disciplines comme le football, le basketball, la gymnastique, la lutte et le handball. Une première édition qui a répondu aux attentes. pour ce festival que nous avons nous accompagné pour sa tenue cette année. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le programme qui a été à l'origine de l'élection de son excellence le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar dans ce programme-là, concernant le programme sport, le sport scolaire y accorde une très grande place. Et lorsqu'on parle de sport scolaire, les plus hautes autorités de ce pays ont donné comme directive de restaurer non seulement le Festival national du sport scolaire, mais aussi de faire de telle sorte que chaque année, qu'un championnat national du sport scolaire possible puisse se tenir de la pratique sportive de masse qui repose fondamentalement sur le sport scolaire et sur le sport universitaire, que l'on peut parvenir à accompagner cette jeunesse au niveau de leur construction citoyenne, au niveau de leur formation, mais aussi, aussi tout de même au niveau de leur insertion professionnelle. Parce qu'on se souvient, nous revenons des Jeux olympiques de Paris. Et la plupart des athlètes qui ont pu accéder sur le toit du monde, qui ont pu décrocher des médailles, très souvent ces athlètes-là, dans leur portrait, on nous les présente comme soit des lycéens ou bien des universitaires. Finale de la Coupe du Maire de Fatick, euh, l'ASC PASTEF s'est imposé face à Guigui dans la série de tirs au but 5 euh, à 4, temps réglementaire 0 à 0. Finale jouée samedi dernier au stade Massène Sène de Fatick devant un public venu euh, très nombreux mais aussi en présence de nombreuses personnalités comme le gouverneur de Fatick mais aussi plusieurs maires aux côtés du parrain Matarba, maire de Fatick. L'équipe euh, victorieuse PASTEF a reçu son trophée, mais également un jeu d'équipement complet et une enveloppe financière de 1,5 million. Quant à l'équipe de Guigui, elle a reçu un jeu d'équipement et une enveloppe financière de million euh, francs en CFA. Le maire a magnifié le niveau de maturité des acteurs, euh, ce qui a fait que la finale s'est jouée dans un esprit de fair play et de sportivité. On a vu deux belles équipes qui se sont livrées un match palpitant, où on a vu très relevé et ça fait plaisir en tant qu'amateur ou amoureux du sport de voir des jeunes de ma ville livrer un tel match, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec un niveau très acceptable. Là, nous devons remercier les autorités qui nous ont permis d'avoir ces conditions pour la pratique du football. On a un stade où l'éclairage est normal, on a un beau gazon, on a des tribunes Je plaiderai tout simplement pour la finition de la deuxième turbine. Mais sachez qu'au nom du conseil municipal, nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être responsables de cette ville et que la finale de la Coupe du Maire a toujours été un moment extrêmement important. Et nous saisissons ce moment pour fêter cette jeunesse, la jeunesse de Fatigue, qui est une jeunesse engagée, une jeunesse respectueuse et une jeunesse responsable. tous les ans, nous essayons de faire plus parce que nous n'avons pas autre chose que cette jeunesse. Nous avons profité de cette occasion qui est la journée de l'arbre d'aujourd'hui. Nous avons fait de l'investissement humain, nous avons reçu les autorités du gouvernement, nous avons fait de l'assainissement humain et nous avons visité ces ASC et les responsables des ASC, les capitaines, les joueurs, nous, avons, nous, avions, nous avaient promis de livrer un match dans le fair play. Ils l'ont fait, ils l'ont respecté. Et ils nous ont dit, il n'y a pas de perdant à l'occasion de cette finale. Parce que la mairie de Fatigue a relevé la mise. L'équipe perdante à un million, l'équipe qui a gagné à 1,5 million. C'est pourquoi ils nous ont dit, nous allons jouer pour vous. Personne ne perdra, tout le monde va gagner. Et c'est ce que je retiens. Quand des jeunes me livrent un certain discours, un discours de cette nature, je ne peux que me rassurer de l'avenir de cette ville, qui est une ville historique et une ville d'hospitalité. Puis notez sur votre agenda cette grande manifestation qui se prépare dans le cadre des vacances citoyennes 2024. Retenez le nom Fitness Tour, euh, un tour du Sénégal euh, avec donc euh, de fitness. Il y aura la participation du 12e avec un programme très ambitieux. Maintenant que les sportifs qui ont des AVC, qui ont le diabète, parce qu'il y a la sédentarité. Et également, si vous voyez bien, ceux qui sont à l'intérieur du pays n'ont pas l'opportunité de voir des sportifs de haut niveau passer. Nous, ce que nous voulons, c'est faire une caravane citoyenne avec le 12e Gaïndé. On va parcourir le Sénégal et leur offrir cette opportunité de s'entraîner avec eux, de leur montrer les biens du sport. Comme il y a des gens qui font l'agriculture, vacances agriculture, vacances football, nous, nous allons faire du sport pure et dure. Par exemple, on nous attend à Wurosogi, on nous à Saint-Louis, on nous à Matam, on nous attend sur euh, Louga. Mais parce qu'il y a on prend un autre axe. Ah, nous appelons tous les sportifs. Le 9, à partir de 18h, 17h, à la place de souvenir. Les autorités seront là, la presse est conviée. Mais ce que je déplore un peu, c'est que pas encore le, le, retour des autorités. Et quand je vois des, des, étrangers nous dire que nous, on est pris en charge, tout ce qu'on fait, c'est pris, pris en charge par tout le monde. Oui, mais nous, qui sommes nés ici, tout ce que vous voyez avec notre mouvement, quand on donne du sang, c'est nous. Quand on fait des enquêtes, c'est nous. Et qu'on nous reste en rate, c'est un peu difficile. On a introduit des audiences partout. Ministère de la Jeunesse, partout. mais pas encore. On ne nous a pas reçus, on ne pas vraiment, ça ne sent pas. Voilà. Alors, Papy, on va tout de suite revoir un peu les moments forts de la Coupe du Sénégal filles qui s'est jouée au stade Marius Ndiaye, ici même. Euh, à l'affiche, il y avait Jeanne d'Arc, ville de Dakar. Et c'est tout de suite le résumé de cette rencontre. Et c'est avec Fatima Dakar sur le toit du basket sénégalais. Elle a réalisé un grand pour la présente saison. L'ASV de Dakar a en les quatre trophées mis en jeu chez les dames. Champion du Sénégal, vainqueur de la Coupe et enfin vainqueur de la Coupe du Sénégal contre la Gendarme le score Une fois de plus, la ville a confirmé sa domination en remportant cette finale qu'elle a dominée de bout en bout. Dès l'entame les protégés de Mustafa Gueye ont déroulé en creusant l'écart très tôt, 19 au second quart-temps, même si l'équipe adverse a essayé de grignoter quelques paniers dans très bien maîtrisée. Les Dakaroises ont déroulé en regagnant les vestiaires avec 10 points d'écart. à 21 ans. À la reprise, la ville de Dakar a poursuivi son chemin tout en maintenant son avantage face à une équipe de la Jeanne d'Arc qui n'était pas dans son meilleur jour malgré une solide résistance. Comme lors de la première période, les filles de Tafagé ont corsé leur avance lors du troisième quart-temps, enfin, de se mettre à l'abri et briser le rêve des filles de Dame Diouf. Au final, l'AS de Dakar l'emporte de 20 points d'écart et termine la saison en beauté. Au-delà de l'effectif de qualité que nous avons, on a beaucoup travaillé avec beaucoup de discipline. Je que euh, les filles un très très très grand bravo. Ils ont enduré. Et pour ce match-là, le plan c'était d'être patient. Parce que la Zadak, c'est pour moi l'une des meilleures équipes, meilleures équipes championnat. avec un effectif et un encadrement de très très très grande qualité. Donc, on savait que même si on avait de l'avance, ça n'allait pas se jouer au premier, au premier carton. Donc il fallait être patient, travailler et nous adapter à leur nouveau système pendant le match. Donc c'est le prochain challenge de la ville de Dakar Comme le président l'a dit, c'est aller en Afrique au mois de décembre, Inch'Allah, essayer de faire la meilleure participation possible. lépp lu ko mooy mooy liggéey rek dégg tamit conseil yi coach bi tey moo feeñ ñu si terrain bi. te yéen a ëppoon doole équipe bu Chia bi. non doole sax lépp mën naa leen liggéey la rek. fi mu toll yéen a doole si championnat. non ëpp na doole kenn ñëpp a tolloo fi ne nii. mais léegi challenge yi mën nañu wax na Sénégal challenge yi fan ah, mooy dem jouer coupe d'Afrique des clubs am yeneen résultats yi gën a baax comme amoon daawati géej. ah l'expérience a joué euh, c'est une équipe qu'il fallait déjà arrêter parce qu'il a un jeu très rapide qui lui permet d'avoir le panier facile. Donc, en début de partie, on est rentré mal dans le match, en les laissant dérouler. À moment donné, on est revenu, pieds sur terre, et on les a vraiment canalisés. On a appliqué une défense de presse et les a vraiment stoppés. Mais à moment donné, on, a manqué de concentration et ils ont repris, repris le match. bilan que vous tirez de cette saison Une finale jouée quand même. Oui, on a joué une finale. Mais vous, vous savez que l'argent est revenu de loin. Euh, on est dans une phase de construction. Mais dans cette phase de construction-là, il faut réussir à garder ses jeux. À chaque fois qu'on réussit à mettre en place quelque chose, après on les perd. Et après on recommence. C'est un éternel recommencement. Donc il faut qu'on arrive à stabiliser pour que dans les deux ans, trois ans, on ait une équipe beaucoup plus forte. C'est une belle fête. On a vu deux équipes qui se valent, mais il fallait qu'il y ait un vainqueur et un vaincu. Mais aucune des deux n'a démérité. Et j'ai vu le numéro 10, euh, de la Janda et le numéro de l'ASC Ville. Vraiment, deux farouches euh, qui ne se sont fait aucun cadeau. Mais ça nous a fait revivre en tout cas notre enfance parce que ce n'est plus de mon âge. mais j'ai fait du sport au moins pendant dix ans donc ça m'a fait revivre euh, mon enfance et j'ai vu que la fête était belle et puis c'était dans un esprit fair play et je crois que c'est ça le sport doit raffermir les liens et rapprocher les jeunes et c'est ce que j'ai je suis venu représenter le président mam Diop Amadou Mame Diop euh, le premier vice-président est là euh, Baba Baba El Baba Sall moi je suis la deuxième vice-présidente vous avez à côté une autre députée donc nous sommes C'est une délégation de quatre vice-présidents et des députés, le président de la commission éducation-sport, pour représenter Amadou Mamdiop, le président de l'Assemblée nationale.

qui a anglais. Euh, comment vous aidez les autres qui ne parlent pas anglais On traduit à chaque fois qu'il dit quelque chose ou on se met à côté de celles qui ne comprennent pas et on essaie d'expliquer vraiment pour que ñëpp comprendre noo en même temps comme ça du nekk di répéter à chaque fois suñu suñu waree euh, def li mu wax. Euh, noonu suñu début noonu mais au fur et à mesure ñu ngi adapté wu ñoo ngi jéem a wax ak ñoom andi leen pour ñu xam ni ñun ñëpp benn lañ quoi donc euh, ça va ñu ngi adapté wu. je pense depuis des années et euh, nous aimerions vraiment bokk si ñi nga xam ne ñun ñooy ñooy arrêté loolu te gëm na ni war na mën a nekk parce que coach bi gëm na loolu moom ngi ñu koy loo donc euh, on doit juste travailler dur en fait pour euh, atteindre ça bala déwén afro basket bi di ñëw. l'Afrique euh, avec également de nouvelles ambitions, la reconstruction qui démarre. Optimiste pour cette reconstruction Oui, très optimiste parce qu'il le fallait dans tous les cas. et comme il l'a dit, il va, faire un mélange d'expérience et de, jeunes. Donc je pense que c'est une bonne chose parce que l'expérience, dafay baax si si équipe parce que ay expérience boo xam ne dina leen mën a et tout nous a été le cas avec ñoom Toch et cetera donc euh, on verra euh, ce, comment ça se passer pour Afrobasket. On revient maintenant sur la traditionnelle euh, journée euh, Fatelikou de l'ASC Les Girafes. C'était samedi dernier au siège de, du Giraffe, au point E. Alors, euh, le parrainage, euh, donc sous le parrainage du grand sérigne de Dakar, Abdoulaye Maktar Diop, on voit ça tout de suite. Grande journée, je m'attendais pas à trouver autant de monde, autant de, de vieilles personnes, autant de grands dirigeants du club. Parce que des dirigeants quand même qui ont là des 80-90 ans, tels que Tonton Girandoui, Tonton Wagan, Grand Serena Matar Diop, c'est vraiment une journée pour laquelle euh, c'est comme si j'ai gagné aujourd'hui une Coupe d'Afrique des Nations. Parce que c'est une journée de travail, de prière pour les anciens, pour les grands dirigeants du club qui nous ont laissé, euh, qui nous ont laissé ce souvenir, qui nous ont laissé un terrain de football, qui nous ont laissé un siège. ce qui n'est pas évident parce que ça c'est le, c'est le problème, c'est un grand problème pour tous les grands clubs traditionnels. Mais heureusement que nos dirigeants euh, ont pensé à nous laisser tout ce patrimoine qu'on a le droit forcément d'améliorer. De, de, de, parce que dans, lorsque j'arrivais à la tête du club il y a 10 ans, j'avais dit que le problème du Giraffe, ce n'est pas, pas, les titres. Ce n'est plus gagner une Coupe du Sénégal ou gagner un titre de championnat, mais c'est améliorer l'état des infrastructures. C'est avoir notre propre terrain de football

euh, on fait un consensus autour, autour d'une personne. Et cette personne-là euh, se trouve être Tchersek, qui a cette légitimité-là. J'espère que j'ai cette légitimité légitimité qui fait que les gens pensent que je dois être l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. qui est en partance pour la Coupe CAN et devra rencontrer un club de la Sierra Leone. Euh, comment se passent les très bien. Là, l'équipe est en stage depuis, depuis 10 jours. Mais bon, il principal de, de, cette année demande le la Coupe d'Afrique, on va le plus loin possible parce qu'on a une toute nouvelle équipe. Parce que pratiquement a changé de visage à 90%. On a fait, je très bon recrutement qui le plus loin possible. Voilà, on retrouve donc euh, dans cette deuxième partie le capitaine de l'équipe nationale de basket, Branco bajo Branco Baggio qui vient de signer à Valence, euh, en Espagne, trois, trois ans. Alors, Branco, faut commencé nous commencer. D'abord, nga avez Valence pour signer. Bon, Valence, c'est un bon club, mm -hmm. comme genre club trampolin, mm -hmm. club où mm -hmm. on peut lancer sa carrière, tu vois. Mm-hmm. en plus que bi may signé foofu noonu maa ngi am accord ak sama coach bu ma yoroon équipe bu ma nekkoon Mandresa. lui aussi il a signé là-bas pour ah, deux ans. donc si man bu may am moom il était en négociation mais je lui attendu après ñu waxtaan ci affaire yooyu noonu. Mm, mm. finalement heureusement moom bu jën a signé foofu tamit donc. je suis avec lui en plus que ma nekk ak koo ne. xam nga am na sama am naa confiance si moom moom am na confiance si man déjà. Hmm. pour commencer une une a waxee donc pour man loolu noonu aidé ma si sama choix quoi pour ma signer beneen club. ok moom moo la ko <laughs> pour ku nekk influencé na sa morom parce a fait une belle mhm. donc ku nekk influencé na sa morom donc. Hmm. Euh, voilà quoi sant yàlla rek. voilà alors léegi euh, est-ce que mën nga dellu soit sa saison euh, bi passée. ak Mandessa bilan saison bi. bon def nañ saison bu baax qualifié playoff qualifié coupe du roi loo xam ne nii équipe euh, comme Mandessa ak budget bu mu am. c' très difficile ñuy ñuy qualifié si yooyu noonu. donc mën nañ ne globalement saison bi dépassé nañ sax fu ñu doon xoolee quoi ci saison bi mm. déjà. Mm. en plus que Mandessa genre ñun équipe boo xam ne tey mën nañ am saison bu baax année bi si topp saison bi du baax dañuy jéem a xeex pour mm. maintenir donc. saison bu ñu fa def saison boo xam ne nii xam nga. Mm-hmm. genre c' ça remercier tout xam nga toute l'équipe mm-hmm. affection beeg ñu ñu doon seetaan ñëpp affaire yooyu noonu mm-hmm. Mm-hmm. ok alors on peut dire que euh, actuellement vous en regroupement pour préparer euh, la Tunisie 12-14 euh, fii ci stade Marius Ndiaye est-ce que mën na dellu soit tuuti en tant que capitaine sur le regroupement parce que am na ay joueurs yu bees yu ñëw am na aussi yoo xam ne ñoo xam ne ñu ngi fi woon est-ce que mën nga dellu soit ci ci regroupement bi bu am solo ñu bëri tamit dinañ xalaat lu ñu ñuy regroupé wu amuñu benn compétition et tout mais c'est très important. Mhm. vu que ñu ngi préparé euh, novembre. Mhm. ak février ak pour ne pas dire très loin mais afro basket bi 2025 c'est bientôt. donc euh, lii nii lu am solo la ñu nekk fi depuis une semaine ñu ngi entraîné wu am na joueurs yu beer yu joueurs yu bees yu bëri yu fi nekk donc du coup mhm. ñu ngi xamante su ñu biir. di créer chemistry de. d'équipe bi ak yooyu noonu donc lu am lu am importance mhm. ñu nekk entraîneur parce que instant yi niveau basket Afrique dafa nekk di yéeg. Mhm. di gën di yéeg donc. Mhm. ñu toog entraîneur entre ñun gën a xamante bu ko defee xam ne ku nekk dina xam base bi. tamit xam nga. loolu noonu c'est très important. alors sànq de sa gën a dafa ne euh, bëggoon nañu am yeneen adversaire comme cap comme Maroc pour tournoi bi pour am tournoi fii nii kon ak Tunisie mais finalement favorablement mais adversaire bu baax la non Tunisie bi ngeen war a dajal le 12 ak le 14. bien sûr Tunisie adversaire bu baax la en plus ñoom tamit ils sont en reconstruction. donc ku nekk dina mën a xam nga évaluer sa équipe bu baax. Mhm. après xool affaire yooyu mën a yokk et tout ça. Mhm. adversaire bu baax la. Mhm. Euh, et puis c'est c'est match yu am solo la le 12 ak 14 ban appel ngay lancer public de Marius le public du Sénégal pas seulement les férus de basket mais bon je dirais que ñu ñëw supporter équipe bi supporter parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ. Mm-hmm. finalement donc fii nii match buy am Marius Ndiaye ou Arena fu mu munti doon dafa war a fees dell. Mm-hmm. parce que représenter sa dëkk dafa neex xam nga léegi tamit ku nekk war nga mën a supporter sa dëkk je dirais. Mm-hmm. donc euh, match bi fu mu munti nekk gars dañu war a ñëw supporter seen équipe. xam ne équipe ñun ñëpp ñun ñoom ñun rek ko. ñëpp ñëpp ko moom donc équipe bi pour dëkk bi yëpp la. alors euh, euh wala la ñu nekk quoi ñun ñëpp quoi Sénégalais ah. Mhm, mhm, voilà. <laughs> Ah, groupe C la nekk ak Cameroun ak Gabon ak Rwanda. Mhm. lan nga wax ci adversaire yooyu Cameroun Gabon Rwanda. bon Cameroun dernière rencontre bi ñu am ñun ñoom ñoo ñu gagné déjà donc Gabon mësuma leen gis ñu joué. par contre Rwanda am nañ équipe bu baax tamit je donc. équipe yooyu noonu yëpp dañuy ñëw pour compétir aussi te basket euh, amul que maa mën kii wala maa mën kële. Euh, il se gagne dans le terrain match yëpp faw ñu dem compétir pour mën a gagner. Mhm. du coup faw ñu entraîner bu baax préparer bu baax. Mhm. loo xalaat ci euh, Sud Soudan bi nga xamante ne mu ngi fa actuellement ci euh, Jeux olympiques. bon man instant ñoom laay supporté sax si Jeux olympiques yi pour te dire waaw mhm. xam naa fa quelques boy yoo xam ne nii genre jot nañu xamante tout ça am nañu équipe bu baax. te ñoom xam nga dañuy entraîner déggoo suude entre ñoom xam nga. Mm-hmm. chaque chaque vacance ñu ngi nekk di entraîner entre ñoom et tout là. loolu moo tax ñun tamit initiative bu ñu jël c'est très bien xam nga pour futur basket bi quoi. Mm-hmm. ils sont en montrer aussi que quelque part afro basket bi di ñëw dina métti dina tàng parce que Sénégal. surtout Soudan du Sud euh, Côte d'Ivoire Tunisie Nigéria Angola Cameroun et cetera donc euh, affaire yi dina dina dina métti ah. loolu day wane rek niveau basket Afrique mu ngi gën di yéeg loolu rek lay wone donc hmm. yeneen équipe rek ñoo war a bañ a bàyyi seen loxo ku nekk gën gën a xam nga hausser le niveau ku nekk di gën a yéeg step by step. Hmm. surtout ñun Sénégal parce que ñun. Euh, ñëpp dañu naan Sénégal c'est un de basket cinq fois champion d'Afrique chez les 11 euh, fois chez les filles mais chez les garçons depuis 97 gagné wuñu ko fii donc ñun on a on doit vraiment tout faire pour que engagement euh, ñu am ko am aussi détermination la hargne de vaincre pour que afro basket bii di ñëw ñu wone loo xam ne vraiment mun na dalal xel yi quoi. waaw incha allah gars yi kay ñoo si war a jàpp rek tamit tuuti xam nga parce que bu dee joueurs yi dañuy répondre présent rek moom c' est déjà bien. Hmm. joueurs yi def li leen war et tout ça coach yi tamit aussi. Hmm. staff bi ñun daal genre côté basket bi ñu ngi def lu ñu war donc ñeneen tamit nañ xam nga rek jàppale tuuti. équipe hmm. bi et tout ça donc ça ça ira incha allah. ça ira incha allah seetaanoon nga afro basket eh, kii euh, basketball Africa League euh, bi passé. Rwanda parcours douane ba finale perte euh, bon man je dirais match boobu lañ perdre bu ñu mënee woon vingt points presque. oui oui oui. bon je dirais que match boobu c'était à hmm. nu mu munti demee xam nga dernier dernier quart temps boo mënee score bu toll noonu hmm. genre waroo mën a perdre quoi. Hmm, mais basket moo demee noonu tamit basket tu sais jamais. teg si erreur yi fu muy ñëwee xam nga fooy perte sa lead bi nga am ci basket bi et tout ça doo ko sax xam. alors euh, am benn moment parce que ñoom bu ñu joué fenêtre Dakar ñu qualifié war a dem Rwanda. Euh, coach Pa bi il avait repéré quelques failles yoo xam ne mënoon na bëggoon na ko renforcer on a parlé de Lamine Sam on a parlé de Branco Badio à un moment donné ils ont été en contact ak yow. waaw waaw nekkoon nañu en contact ak man Pa bi di ma wax pour ma mën a ñëw et tout ça mais finalement man mënu ma woon ñëw parce que maa ngi woon compétition maa ngi woon en playoff instant mm-hmm. boobu noonu xam nga mm-hmm. sama playoff jeexagul woon. Mm-hmm. sama dernier match playoff c'était juste ñoom bu ñuy. boobu fekk na ñoom ñu voyagé Rwanda sama dernier match playoff dafa mel ni samay joué dernier match playoff tey suba ñoom seen match xam nga c'était impossible donc loolu waaw. merci euh, Branco merci beaucoup en tout cas euh, ñu bàyyi la nga dem continuer entraînement yi. merci beaucoup. ma ne ko merci de passer ici. Euh, nuyu ma waa Rufisque ah. incha allah nañ ko dégg bu baax. <laughs> waa Rufisque moom say gaañ lañ. waaw ah, voilà voilà <laughs> alors dans un instant on poursuit cette émission voilà merci beaucoup ñu ngi fii am pleine séance pleine séance d' entraînement euh, tey tey nag Papi am ay caméraman ay Bamba Diallo ah ancien joueur Jeanne d'Arc ancien joueur Duc ancien joueur douane tey moom moo aidé Papi Diène ci film bi ah voilà moom moo am ci coulisse fii ci stade Marius Ndiaye alors on est avec Karim Mané c' est un jeune euh, basketteur sénégalais euh, de 24 ans donc sénégalo canadien ou canado sénégalais Euh, en tout cas naturalisé, il a sa nationalité sénégalaise. Alors c'est un plaisir euh, de le recevoir dans ce numéro. Alors Karim Mané, bonsoir, merci d'être nous avec, euh, d'être avec nous ce soir dans ce numéro spécial que nous réalisons ici au stadium Marius Ndiaye. Alors qui, qui est Karim Mané Bonsoir, ben merci de m'avoir ici. Mm -hmm. euh, Mané, je, déjà je suis sénégalo-canadien, on peut dire déjà pour commencer, parce que je suis né, né au, euh, au, Sénégal, jusqu'à mes 7 ans, mhm. et c'est à l'âge de 7 ans en fait que j'ai, euh, on a déménagé, on a émigré au Canada avec mes et tout. Mhm. Mais Mané au début c'est, c'était un genre de foot, mhm. un genre de soccer. Euh, c'est à l'âge d'environ 15 ans que j'ai commencé à prendre le basket sérieusement et commencé à m'entraîner pour pouvoir un futur avec. Et euh, maintenant, ouais, avec tout mon parcours que j'ai eu, je suis rendu ici finalement dans, euh, autour à la source, autour mmh. euh, à la terre natale et non, pour représenter mon pays. Retour à la source, mais, mais, mais dites-nous, racontez-nous un peu le, le, cursus de Karim, le cursus, cursus de basket, et les débuts, comment il a piqué le virus du basket euh, et puis par où il est passé. Ouais, en fait, moi, euh, le basket, c'était pas vraiment dans ma vie, comme j'ai dit, jusqu'à l'âge d'environ de à 12 ans, en fait, c'est là que j'ai commencé à être, j'ai commencé à prendre une balle dans mes mains, et c'était à cause que j'avais changé d'école. Donc, euh, en changeant d'école, hmm. les gens à mon école, à la récréation et tout, ils jouaient plus au foot, ils jouaient plus au basket qu'au foot. Mhm. Donc euh, naturellement, j'ai juste commencé à jouer au basket. Et euh, maintenant, ce temps-là, je joue encore au, mhm. foot. Et c'est le foot euh, le plus important jusqu'à environ l'âge de ans. C'est là que j'ai le changement au, basket. Mais euh, ouais, j'ai commencé là-bas. Et ensuite, euh, à partir de 15 ans, comme je dis, j'ai pris, le, sport sérieusement. J'ai commencé à m'entraîner comme il fallait. Et ensuite, puis on, on, je suis à l'âge de... Je Euh, à l'école de Vanier. C'est un collège là-bas euh, qui se passe à, à Montréal, puisque j'ai grandi. Et ça, c'est un collège qui m'a permis, permis, de me développer là-bas. Mais même avant ça, j'étais passé dans plusieurs endroits, qui est une école de Lucien Pagé là-bas et tout. C'est des écoles secondaires que j'ai passé là-bas, j'ai pu me développer. Et ensuite, euh, c'est ça que c'est. Maintenant, je suis rendu ici après avoir joué à Vanier. J'ai euh, j'ai eu un contrat avec l'Orlando Magic. et, euh, en 2020. Mmh. Et ma deuxième année, j'étais avec les Memphis dans la G-League et euh, Philadelphie dans la G-League après ensuite. Mmh. Ok. Et, et, et qu'est-ce qui a le plus posé sur la balance jusqu'à ce que Karim décide de jouer pour le, le Sénégal En fait, le, moi qui viens jouer pour mon pays natal, c'était vraiment dans, les, dans, le travail quoi, depuis quelques années. Comme vous m'avez dit avant l'interview, mon père est en contact avec plusieurs gens ici pour essayer de euh, mettre, ça, mettre, ça, en marche. Quoi. Mais ça n'a toujours pas pu se faire jusqu'à jusqu là. J'avais même, dès quand j'étais en contact avec le coach avant, Boniface, il connaît très bien mon, mes parents, notre famille et tout. Donc euh, ça a toujours été un truc qu'on a essayé de faire depuis quelques années. Mais là, finalement, on a pu le finaliser. Et non, je suis juste heureux euh, d'être là pour pouvoir représenter le Sénégal finalement. Et, et quel a essayé le... Parce que je rappelle que depuis des années. Son papa, j'étais en contact avec lui. Il me parlait de ce jeune. Il était encore plus jeune que ça. Et aujourd'hui, nous tous, c'est un, plaisir pour nous de le, de le voir, hein, arborer les, couleurs euh, du Sénégal. Alors, euh, quand vous avez appris que la nationalité acquise, quel a été le premier sentiment euh, qui vous a animé c'était un sentiment de soulagement, je dirais plutôt, parce que c'était un peu euh, you know, des back, beaucoup de back and forth avec les coachs et, mm -hmm. et euh, mes parents et surtout mon père qui a travaillé dans tout ça, qui a, fait, qui a pris le champ du procès. Quoi. Donc euh, c'est un sentiment de soulagement pour, pour finalement savoir que you know, le processus est fini et déjà que maintenant je peux finalement you know, jouer pour, euh, pour, pour, mon pays et revenir sur la terre natale et pouvoir représenter la, de la bonne façon quoi, mm -hmm. mes parents et ma famille. Et comment ça se passe, l'intégration dans le groupe ah, ça se passe super bien, hein. les gars s'en séparent quand même, les gars c'est des gars qui travaillent fort et tout. Ils voient un peu déjà la culture que de, le coach, le head coach euh, de Sagagna a amené avec euh, des assistants comme Mamadou qui, qui, non, qui sont dans la, des, des, des entraîneurs NBA et tout. Mais sinon ouais, ça a été facile ici, les gars sont, non, en fait, on est juste en train de travailler fort pendant, ça fait quoi, 5 jours là déjà qu'on a commencé et je crois comme on, est déjà en train de créer une, une chemistry entre nous en, en fait. Et puis, et puis tout à l'heure, j'ai entendu le groupe entonner des chansons en, en Wolof. C'était lui aussi chanter en Wolof c c c Non, non, moi je chantais pas moi. <laughs> moi je chantais pas moi. Si, je vous ai, je vous ai aperçu Anthony, ouais. la chanson en même temps que les, le groupe. Ouais. Mais tu commences à avoir quelques mots Wolof. Hein? Ouais, comme je l'ai dit, je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à 7 ans, donc le Wolof, je, je, je, comprends, je comprends pas mal. C'est juste l'accent que j'ai perdu, tu vois, un peu. Juste parler, tout ça, j'ai perdu un peu, mais comprendre le Wolof, ça c'est pas trop un problème pour moi, ça. tu connais bien les plats sénégalais. Ouais, ouais, exactement. Comme quoi, quel, quel plat là Les quoi, les plats sénégalais les tout ce que je mange, moi. Hein ouais, moi, tout ce que je mange, les plats sénégalais. Le, le tchéboujen, le, le yassa, yassa. kaldou, <laughs> tout. Il connaît bien, hein, Pape, il parle de kaldou, donc il connaît bien les, les, les plats votre idole, quelle votre idole en basket ah, Mon idole, euh, je dirais pas exactement j'ai une idole, mais en grandissant, il y a beaucoup de joueurs que comme j'ai regardé, que j'ai essayé d'émuler. Comme j'ai commencé le basket euh, euh, tard, c'était comme un challenge pour moi de pick up everything euh, à, un certain, à un certain pace. Comme je devais le pick up plus vite parce que j'ai commencé late. Donc, euh, regardez des gens comme Katie, Kevin Durant dans, ouais. dans, le, dans ce temps-là, les gars comme Drew Holiday. Mm. Et maintenant, je regarde beaucoup des gars comme les, les gars qui jouent ma position, comme Luca Doncic, Shea Alexander et ces gars-là. Comme, mm. C'est ça ceux que je regarde. Mais je dirais pas comme j'ai vraiment un idole en tant que tel. C'est juste que j'aime ça étudier certains joueurs et prendre, prendre certains aspects de chaque, euh, chaque joueur que j'aime regarder. Quoi. Et au niveau de l'équipe nationale, votre idole euh, Je veux dire Maurice Nour. Hein Maurice Nour. Ah, Maurice Nour ouais. C'est comme mon, mon, mon, grand frère, mon, mon oncle. si vous voulez dire. Donc, euh, ouais, je, je, je, suis très proche avec lui. Ouais. Donc, vous voulez, vous, voulez faire, vous voulez laisser les Rastas grandir comme les Rastas de Maurice Ndour, peut-être <laughs> Non, non, non, on va pas faire ça. Hein? Pas maintenant, pas maintenant, en pas tout cas. Maintenant. Non, non. <laughs> Alors, votre, on termine par là. Votre plus grand rêve, c'est quoi Mon plus grand rêve, déjà pour l'équipe, c'est de venir ici gagner. Donc, c'est mon but. Donc, moi, il n'y a, a, pas, pas de façon de le dire, c'est simple, de gagner. Que ce soit des matchs amicaux, que ce soit des matchs, you know, des, des matchs de qualification, peu importe ce que c'est. juste entrer une culture de, non, ici et commencer comment, pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques. Déjà se qualifier, ça serait, ça un de mes buts, pour le Sénégal, les amener aux Jeux Olympiques, mhm. mais pas juste se qualifier, mais non, actually, mais euh, faire une différence quand on arrive là-bas. Merci beaucoup. Merci à vous. <laughs> Merci à vous. Euh, euh, de l'équipe du Sénégal Euh, qui vient d'intégrer encore une fois la tanière des Lions du Sénégal. Ça a été pour nous un plaisir de l'accueillir ici au Stade Marius Ndiaye où nous, avons réalisé ce numéro de sport des gestes spécial sur le basketball. Il y a eu d'autres actualités qu'on a développées, euh, mais vous le savez encore une fois, l'équipe du Sénégal prépare un tournoi important, un l'appeler un tournoi puisque ce sont deux rencontres. Euh, si vous voulez, une double confrontation. sénégal et le 14 donc de ce mois d'août, ce sera ici au Stadion Marius Alors tous, tous au Stadion Marius pour supporter les Lions, pour déc découvrir de nouvelles têtes comme euh, Karim Mané, mais également pour pousser l'équipe du Sénégal parce que c'est l'opération Reconquête qui est lancée, parce que vous le savez tous, au mois de novembre, le Sénégal va accueillir un tournoi capital. Euh, donc ce sera contre le Cameroun, le Gabon et le Rwanda. Merci en tout